bubbu leen maxfuuran lakum di ñuy jégal de qabiltu nangu naa minkum ci yéen alxasanaata jëfi rafete wa qabiltu nangu naa almoxsinina way rafetale minkum ci yéen wa habtu may naa almusina ñuy ñaawal lil moxsinina ngir ñuy rafetal de ñuy ñaawal sax may naa leen ndax ñuy rafetal afidu bubbu leen maxfuuran di ñuy jégal lakum ñeen leen wa tabiatikum seeni seeni aq min xasaayini danaa ko fayee sama magasin samay magasin yi laa min xasanaatikum du seen jëf yu rafet de xaq yi ngeen yoreel nit ñi samay magasin yi yërmande ci laa koy fayee waaye yéen seen jëf yu rafet kenn du ko laal wa hada li dalilun tegtal la ala anna saatir ijaaba na waxtu nangu ñaan fii kulli laylatin ci guddi gu nekk wéy moom saaxir leeli mu ci mujj guddi gi waa guddi gu nekk rek mujj guddi ga mooy waxtu nangu ñaan dàkk leen ko ngeen ñaan ci yàlla seeni soxla de fali hada lii moo tax yor xabu danañ xamam an yakuna mu nekk abdu jaam amaloo jëfam fi leeli ci guddi gi li gën daal mooy jaam di jëf li muy jëf ci guddi gi yu axiroo na ko yéexeelal jusil axiri ba ci xaaj bu mujj ba minu ci guddi ga mu daal di ko liggéey de moo gën ndax yàlla dafay nangu foofu jëfe de yaqul may waa suufee suufiyanki ne ne kun ma nekkal biddiw fay lam tastatin boo ko mënul fakkun xamara nekkal weer fay lam tastatin boo ko mënul fakkun shamsa nekkal jant kun nekkal naj man ay kun nekkal mutaabidan di aji jaamu yàlla allayla guddi gi kulloo lépp kama ana nañ comme ni nga xam ne biddiw hmm, yóbbitu day fanaan allayla guddi gi kulloo lépp saareen di aji rañaan fay lam tasatin boo ko mënul fa kun nekkal xamaran weer ay tataabudu nga jaamu yàlla fii xismin ci xaaj mais léegi ci guddi gi boo mënul jaamu yàlla guddi gi yëpp melal ni weer rek jaamu yàlla xaaj ci guddi gi alxamaru weer yasi day rañaan fii ab xaaj mais léegi ci guddi gi waaye bu mu faatu fi gisin aaxara ci beneen xaaj gi de weer moom dana feeñ ab digg ab digg mu nëbbu fayam taqdir boo mënul loolu lépp nag fukk nekkal samsan di jant tàmburu tamay ga jaamu yàlla fi naxaari ci bëccëg de jaamu yàlla bëccëg ndax jant bëccëg lay fenk kullu muhibbin képp ku bëgg yuhibbu dana bëggal xalwata weet bi mahbubi ci kam bëgg bu bay daaw lay guddi salawaatul xalawaati mooy julli weedi de ku nekk rek bu guddi jotee dafay bëgg a soppeem wala daal bëgg naa wéet ak soppeem ab digg àll ba nag ci lay àlli guddi yi ci lay wali seen soppe te mooy seen borom de kon yow del jaamu yàlla guddi kaane ne kon ibnu omar yaqul di wax li xulaami ñeel xalem ibnu omar daf laan wax xalem bi ne ko al asartu hal dégg nga ndax dugg naa ci njël ay hal daxaltu ndax dugg naa fi saxaari ci njël ndax fajar jot na buy jaamu yàlla rek ba ci kanam mu ne ndax fajar jot na idaa boo waxee laa déedéet xale bi bu ko déedéet yaqumu mu jugu soli du julli wa idaa qaala boo waxee naam waaw jalasa mu toog astaghfirullah di jégalu yàlla xale bi bu ko waaw njël jot na rek mu toog di jégalu yàlla de yu awilu ma ngay taawal taawil haajil aaya mooy mustagfirina bil asaari ñooy jégalu yàlla ci njël moo tax bu ne ko fajar jot na ma ngay jég ma ngay jaamu yàlla de di di di ko jégalu buur ne shahida seede na laaw yàlla baam laa ilaa amul benn buur mi war jaamu jaamu ngay jëriñ ñàkk jaamu ko di lor illaa huwa lu mooy moom nazaral wàcc ne moom laa ji la maa qaalat ba mu waxee al yahudi yahudi li nabi ñe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نهاتنا أن لن بأكبر شهادة تسيري غنمك في القرآن شاء القرآن بان سيري مولي غنمك شاء القرآن يهودي نه نيو وخلو لينونتي بي أن لن سيري غنمك شاء القرآن قال يلا وحنا سيري سيرنا الله يلا أي بيانا ليرانا لخلقين ين من دفع من بدلا هايزي أي تكتل ولا ياتك أي كاوتف دي يلا إن أي كاوتف ليرنا ليرنا من دفع أنه نجام بام لا إله amul benn buur bu ñuy jaamu illaa maabuda amul ku ñuy jaamu su wujudi ci am gi bi àqin ci dëgg si waaw ku dul yàlla yàlla rek la ñuy jaamu amul kenn ku ñuy jaamu illaa wala mooy moom de wa shahida seer na bi daalik ci loolu al malaayikatu malaaka yi malaaka yi seer nañ ne yàlla rek lañ war a jaamu wal malaayikatu malaaka yi shahidoo seer nañ bi liqraari te moo ñu nangu ne yàlla rek lañ war a jaamu de wóolu naan mi borom xam-xam yi shahidoo seer nañ ay ba tey bi liqraar ci nangu ne yàlla rek lañu war a jaamu yàlla seede na malaaka yi seede borom xam-xam yi seede ulul ilmi borom xam-xam min anbiyaa ci yonent yi wal mu'miniina way gëm yi beneen te xaali fas nañ ne war a jaamu wala fi te tudd ko seen baat qaayiman mbirum mu aji taxaw moom yàlla bi tadbiiri masnuwaat ci defar ci doxal ay lam lam liggéey xaala kaw nii jamono moom qaayiman daa ji bi tadbiri masnuwaati ci doxalam ay liggéeyam de bil qisti ci maandu nag bil adli ci maandu laa ilaaha amul benn buur mu war a jaamu illaa woon mooy moom yàlla mu na koy taakiri ngir feddale ngir feddali al aziz maa ji not ci nguuram moom yàlla fi mulki ci nguuram al hakim maa ji xereñ fi sani ci jëfam de yàlla mooy ki not ci nguuram ki xereñ ci jëfam inna diina naka diina jin gërëmal mardiya bañ gërëmante laay fa yàlla tabaaraka barni wa taala kawe na woo moomal islaam moomal islaam diina jin gërëm fa yàlla daal moo di lislaam asharu sharia al mabuusu bañ yónni bii ci moom arusul yonentu yëpp al mabni ba dabañ tabax ala tawhid ci wéetal yàlla moo di lislaam sharia gi nga xam ne wéetal yàlla la mboolem yonent yi ci leen yàlla yónni mooy lislaam aadama ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lislaam la leen yàlla xebal de fa lislaamu lislaam huwa moom diinullaahi mooy diina yàlla al murtada ba da bañ gërëm li kaafati xalqi yi ñeel mboole mbindeefam yi min awali dahri ci commencement jamono yi ila axiri dahri ba ci mujj ak jamono ñoom ñëpp ci lislaam la leen yàlla yebal way ixtalafu di la wutee nañ fi baadi anwaay ibaadaat yi leen ci xeeti jaamu yàlla yi de di la jaamu yàlla yi daal dana wutee waaye lépp ci lislaam la ndax faqad ittafaqu ñoom ñëpp dëppoo nañ al ci gëm bi laay ci yàlla wax doo moom dong ñoom ñëpp dëppoo nañ ci gëm yàlla tanzimu laay màgg yàlla tabaraka barni wa taala kawena wa shafaqatu ak yërëm ala xalqi ci mindeefe mi loolu mboole mindeef yi dëppoo nañ ci màggal yàlla daal ak ak yërëm mindeef daal mooy lislaam moo tax julli sax lool rek la boo noppee ci màggal yàlla rek yaa ngi wax asalaamaaleykum sàkku jàmm ñeel mbindéef yi loolu moo di lislaam diine yëpp ci loolu lañ nekk de gannaaw lislaam nag benn diine valable tut fali na lépp inna diine nekk diine na laa fa yàlla alislaam moo di lislaam loolu la yàlla wax de ruwe netal rawaa netal na waayil an abdullah ibn masud jëlee ci abdullah ibn masud na rasul na yonent bi sallallahu alayhi ne njëriñ googu man xaraa ku jàng لا يجي شيء الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام كجانغ لا جوجو ببري وخ ني وأنا أشهد maa ngi بما شهد ma سيرنا لا ولا na laa الله bii ci moom wastawdiu laaha maa ngi dénk yàlla hadi shahadata bi indallaahi mm, fa yàlla lii wadiatun dénkaane li waye la lii ñel ma indallaahi fa yàlla koy wax ci arab nga wahiya moom lii ñeel na ma indallaahi fa ku wax loolu jàng baal ba ana man astawdi maa ngi sàkkoo dénk haadi shahadati bi la seede ànd ak fa yow yàlla faye moom wadiatun dénkaane la lii ñel عندك فيوم يا ربي يسمى برم صوبة خير لورو ينادى درين له يوم درين كهومم واجوجو يوم القيامة ذكر بسبنتي فيقول موق رب برم بي لإن لعبدي نك ينا سما جنب عندي فمن عاد أكل ره وأنا من أحق من أو من وفاء ما جنا هيو تكيب كوي مثل بين عادي تكل ره أدخلوا دوغلينكو الجنة الجنة ده فيدخلوا مدال دوغل الجنة الجنة, الجنة, الجنة, الجنة, الجنة, الجنة, الجنة, الجنة كوخ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام بابرنا يالا مانغلي دينك سيرة سيلي دينك أنا لا نيهلا دينك نالكو من ko وحش ci làkk boo man soo ko waxee rek yow man xiyaamatu yàlla dama la xoo ne te man maa gën a xeewoo matal ndénkaane aywa jël leen ko dugal aljana kon njëriña googu qaala wax na xaalibun qaxtaan ne kuntu nekkoon naa musaafiran daa ji tukki wa nazaltu wàcc naa indal ahmas ci ahmas falamaa jaa waxtu saxaar waxtu njël samextu dégg naa ko yu raddu mu ngi baamu haaji ayata bi la aaya wa yaqul may wax si wadiatun ndénkaan la lii ñel may ndek fa yaa rabbi sama borom fa qultuma daal di wax moom xaalibun qaxtaan mu ne ma ne jot na ko cheyun dara fi aji aaya ji ci dafa mel ni daa xam ne lu mu xam ci laaya ji wa azamtu di ala safari ci tukki xataa na mataayi ba sama bagage sax zahaba dem na maal qaafilati ànd ak gawar ga fala ma salla bu mu suba suba qultu mu wax la woon ko ne ko sami'tu تكرر بما هذه الآية بلا آية فهل بلغك نحجر نرى شيء در في آية الآية جوجو قال من لا أخبرك دون الخبار جارين دي نكتي الآية جي حتى تقيم المين غصر عندي فمن سنة أت كاملة بمت غالب قحتان لم تكي تبيت تكمي مواتي سي أحمش فجر جور مديك كومي بام الآية جي رك نان يالا دينك نالكو من أحمش دال دفع من أمن المقام تلاجي fekk boobu maa ngi ci tukki nag sama bagage sax far na dem bañ julee suba ma ne ko dégg naa la ngay baamu laaya ji ndax da nga cee dégg dara mu ne du ma wax ba mukk lu may nga sax sama sama kër at xaaral ma ne ko uktub bindal haada bis bi alyawmul fulaani mooy bis nangam mina sanati ci at mi waana bi baabi ka maa ngi sa buntu hatta tamat ba mat asanatu at ma mag ñi mag ñi lii la leen xam jaral mu ne ko bindal bis tàngam. بندل بعد ممت فلما تمر بمت يا سنة أدم أخبره خبار نك حديث وائل حديث وائل بهذا بي أن ابن مسعود جريك ابن مسعود ما أنا من قرأ كجان هذه الآية بلا لاية وجعل مرف كورعة كان عند الله فعل تبارك بني وتعالى كولا جاء ذكر يوم القيامة كرب بسبنتي والله يلا ينادي ذنك هو على رؤوس الأشعار شبب سيري نبتعو نئن لك نيان لا جنبي عندي فمن عاد دهل waanaa man axaqu man wafa maa gën a yow ci képp ku matal bila adi ci dal fadaxul dugal aljanata aljana laa jàngoowu laa ji rek la ko xamal ne ko daal ku jàng shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa huwa al azizul hakim inna diina inda allahi al islam boo jàngee laa jooju ne yàlla dénk naa la seede soosu yàlla na la xoo ci kanam seede yëpp yawmal qiyaamati ne la dénkoon nga mat a gën maa gën a yow matal ni nga yow duggal aljana jëriñ googu bu ne wu maxtalafa wuuteewutu allazina ñi nga xam ne wuutu jox nañ leen alkitaaba ba te mooy yahudi ak nasaraan yi wuuteewuñ fi diine ci diine baan waxada te mooy mu wéetal yàlla baadu ñenn ñi wa kafara mu weddi yàlla baadu ñenn ñi yahudi ak nasaraan yi bay ñii di weddi yàlla Hm, wéetal yàlla illaa min baadi ma jaawum lu may gannaaw ba dikkal na leen leen mu xam-xam xam-xam bi tawhid ci wéetal yàlla baxeen ngir rek añaan de xasanan ngir rek añaan menen kaafirin ci way weddi de <clears throat> ba léegi ñu bëri ñi lañ fa nekkee gannaaw buñ xamee dëgg daal ña ngay werante rek ngir rek añaan baynum bu nekk seen diggante bu ma nekk furk weddi bi ayaati laa ci kaw teefu yàlla fay na laa naka yàlla sareew na la almujaazaat ak fayanteeg la ñeel ko lu gaaw la moom yàlla feen xaaju ko nem xuloo na yow Muhammad sallallahu alayhi wa ay xaatama ko xuloo naa yow alkufaar yéeféer yaa Muhammad yow Muhammad fi diini ci diine xéeféer yi buñ xuloog yow ci diine fa xul waxal ne aslamtu jébbal naa wajiya sama jëmm sama jëmm jébbal naa ko yàlla in xattu ummatuna law ñeel yàlla man waman <clears throat> ittabaana képp ku ma topp rek laa képp ku topp yonent bi rek da ngay jébalul yàlla su yàlla bëggee yaa mu benn soxla lu mu wax loolu la lu mu bëgg loolu la booy wax lu gërëm loo yàlla tax ngay wax soo defi loolu rek ngay def lu gërëm loo tax yàlla nag sa yoon nekkul ci yonent bi ci loolu la nekkoon ak képp ko topp de waxul waxal lillazina ñeel ña nga xam ne uutu jox nañ leen al kitaaba téere te mooy yahud ak nasaraani wal ummiyiin ak yaarami màkk yi mooy mushrikin arab yi bokkaalekati arab ya te mooy arabi màkk yi de wax leen ne leen a aslamtum ndax jébbalu ngeen maanaam aslimu jébbalu leen laaj googu laaj ak digle la a aslamtum jébbalu leen de waxal yahud ak nasaraani ak yéeféeri màkk yi ne jébbalu leen fayn aslamu nem jébbalu nañ nag faqad ihtadaw gindeeku nañ min adalaali jógee ci réer وانت ولو نمد من الاسلام باي الاسلام بن جبلو جندي كونن نيو ريرون واي بن ددو الاسلام نك فان ما عليك انك درا ور الله البلاغ لما جوتال التبليغ جوتال جوتال رك مولا وار يو جوتليغا والله يلا بصير اجي قم لم بن بارس جامي تدن لن فاي سين جف دي فاي جازيم دن لن فاي باعمال سين جف وهذا لي qabla amri njëkk yàlla di digle bil xitaali ci xeex la woon de njëkk yàlla digle xeex daal xoote rek ku jébbulu baax na ku jébbulu yàlla dana ko fay waaye gannaaw ga nag ku jébbulu rek waaw jaas ji dal ci kaw waaw loolu gannaaw bu ñu sonalee xeex ak ñi rey leen bun xataa leen ci yàlla digle ne ay wa yéen dal leen seen kaw de comme ñoom nuñ ci kaw jullit ñi rek na ko jullit ñi dalee seen kaw inna la dina naka gaa yi nga xam ne yëg furoon danañ weddi biayaati laayi ci kawteefu yàlla wa yaqtuluuna ñu rey annabiina yonent yi bi xeyri xaqin ci lu dul dëgg te mooy zulman ci tooñ wa yaqtuluuna ñu rey alladina gaañ nga xam ne yaamuroon dañuy digle bil xisti ci maandu ay bi adli ci maandu mine naasi ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy weddi kawteefu yàlla di rey yonent yi ci tooñ di rey ñi digle maandu ci tooñ هم نيوم نيرف لول مو اليهود مو يهودي يهودي نيوم دي كاتيو في الله ود يونت الله عيسى ود يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم راي يونتو راي بروم خم خم يي ديغلي ماندو مي ناس سي نيت راي نان لاندي روي نيت لاني انوم نيوم قتلوا راي نان 43 نبيا نين فك يونتو اك نيت فناهم مترلين لولو 170 téeméer ak juróom-ñaar fukk mi noonu baalim seen jaamu ka jaamukatu yàlla ya faqat loom ñu rey leen mi yow mi ci bis boobu de rey nañ ñeent fukki yonantu ak ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay jaamukatu yàlla ñëw di leen xaaye ñu far reyaale leen yow daa def loolu de fa bashirhum bégal leen maanaam aalimu aalimhum xamal leen bi azaabin ci mbugal alimin bi aji métital de maanaam mulimun bi aji métital ñooñu daal na ngeen leen xamal ne yàlla wàccee na ci ñoom mbugal moo xam ne dana méttal seen yaram <clears throat> wa dikrul bisharati tudd bégle huna fii tahakkumun ñaawal la biim ci ñoom fa bashirhum bégal leen maanaam loolu ak yejji la rek ak ñaawal leen ak turaxal leen waaye xamal leen la ci na mu de <clears throat> mbégal mbugal moom kenn du ko bégle ulaayka ñooñu la alladina mooy ñi nga xam ne habitat sippeeku na a amaalum seen jëfe de batalat yàqu na maa amilu lañ defoon min xeyrin ci xiw ka sadaqati niki sarax wasilata rahimin ak jokk mbokk loolu lépp yàqu na fi duniya ci àdduna wala axirate ak alaxira du du leen jëriñ ci àdduna du leen jëriñ ci alaxira faranti daara di rek compte bi ci jëf yooyu li adami charte yaa ngi nekk ak charte ba sellal yàlla de ak jublu ci yàlla rek ñoom seen jëf yu baax yëpp jublu ci yàlla moo tax yàqu na <clears throat> wa maa lahum te déet di ñeel leen ñooñ ñoom gaañooñu min naasirina ci way tere mbugalam yàlla de yowal qiyaamati xéeféer yu bon yooyu kenn mënu tee mbugalam yàlla wàcc ci ñoom maanaam maanee na amul ñu leen di tere min ci mbugalam yàlla <clears throat> àdduna nit dana def dara mbooloo am dimbale ko waaye àllaaxira loolu am mu fëre mbooloo du la dimbale mbugalam yàlla buy wàcc kenn mënu ci dara foo mu wàcc rek laa wax de in uridu lislah mastantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh